بالله من الشيطان الرجيم تلفق وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفاسقون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الله sadaqallahul azim assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu mbokki daara ji ñu ngi leen di nuyu di daje ci nuyu bi kilifa daara ji sëriñ boobu mat yéen jaxate ak son maama dem ak mboolem ñi ñu daara bi ak mbooleem koo xam ne yaa ngi liggéey ci daara ji ak gone yi nga xam ne ñoom lañ nekkal ci ci daara ji ci turu jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji muy góor yi ak yu jigéen yi ñu ngi sant képp koo xam ne nii teew na ci ci jotaay bu mag bii Euh, di wax naan di wax ne ñi ngi gën a sant suñu borom bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moom la yàlla dogal ci ñoom moom la yàlla dogal ci ñun te muy jàng ak jàngale te mu bokk ci liggéey yi gën loolu ñu ngi koy sante suñu borom subhanahu wa taala te di ko ñaan mu gën ñoo dëgëral gën ñoo may kàttan ak xel mu yaatu ba liggéey boobu ñu eggale ko fi nga xam ne fa lañ bëgg mu egg ci barkeb sëriñ bi ndax liggéey féetoo ko kaw muy liggéey boo xam ne nii liggéey bu ñu bu ñu la liggéey bu ñu bu ñu neex la boo xam ne nii yëngu yëpp yëpp ci yënguti yi ci wàll woowu la jëm kon loolu ñu ngi ci sant yàlla baax di ci sant sëriñ bi nga xam ne moom moom yàlla dogal ñu nekk ci kilifteefam di ko ñaanal mu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké al xalifatul am lil muridiya suñ boroom guddal aw fanam te wéral aw yaramam ba lépp lu muy liggéeyal yoonu murid liggéeyal ko lislaam suñ boroom defal ko ko nam ko nam ko ko a nam ko nam ko bëggee euh, bu loolu jàllee rek daanaka li nga xam ne mooy kàddu yi fi jiitu te xale yi wax ko ñi ngi leen sant bu baax ñoom itam gone yi ci ñi fi jaar ci kàddu yi ci arab bi français bi wolof bi ak ñi nga xam ne ñoo fi doon def théâtre bi léegi ñoom ñëpp ñu ngi lu seen seen doxalin ñoom ñëpp itam liñ feeñal lenn lu ci nekk luy defar la luy defar jikko ndax kenn ku nekk ci ñoom jël na kàddu wax loo xam ne nii luy soññi mbokk mbokkam yi mu nekkal ci daara ji ngir ñu gën a mën a defar i jikko jikko yi nga xam ne moom lañ doon moom leen yare ci daar ji ci mu bokk ci jikko yi nga xam ne mooy mooy jikko yi gën kon nag e, li leen di wax mooy loolu ngeen farlu ci bu baax a baax ba fu ngeen mën a dem itam ngeen làmboo jikko yooyu ba képp ku leen gis xam ne lañ defoon ci yéen du dañ ci yéen bu mukk ndax mooy li moom mooy li gën ngeen bañ a ñee kenn ci dara ngeen nekk ñoo xam ne ñi ñu ñuy roy ngeen doon ba ba faw xam na loolu ay soññ la doon comme kàdd yi du gudd ngir xëy na kàddu yi cant la doon yoo xam ne ñu ngi jógee ci jàngalekat yi e, daanaka du du jar ñu koy guddal ndax li ci ëpp ci soññee ñi jiitu wax nañ ko ala kulli xan dal mooy ñu ngi leen di soññ ci góorgóorlu di sant mboolem ñi nga xam ne ñi ci daara ñëpp képp ku fiy liggéeyee képp kuy yëngu ci daara yi ba ca kaw ba ci suuf ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñ borom subhanahu wa taala eh, defal leen la nga xam ne moom moom moom moom moom mooy li gën eh, kon ñu ngi eh, gàttal kàddu yi ngir xataayu waxtu wi xam naa waxtu wax ji moom dëng na wax ji jubut ndax ndax wax joo xam ne waajuñ ko maa ngi nii léegi laa ko lañ ma ko wax xam naa ma jël kàddu bi rek waaye nekkuloo xam ne lu ma préparé la motax kon dama kay gatal fofu te djeglu ci kaddu yi di djeglu ñi nga xamne ne itam ci seen tour la do wax bu fekke ne wax ji dëng na ñu xamne ku dëngum xel mo doon wax bu jume ñu sante ak suñu borom taala ngir ñak ko wacc en tout cas dal moy jangale kay ñi ngi ñaanal ñep ñi ngi ñaanal suñu borom dafa leen eh, tawfiq eh, di ko ñaanal ñi ñi nga xamne ñoy kilifa dara ji ak kep ko xamne ni mo nek ci bi bi dara ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñoo ngi leen di nuyu yéen waa jotaay bi yëpp di bëgg a wax ci wàllu wér-gu-yaram euh, di waxaale tamit ki nga xam ne moom laa ko bokkal fii muy soxna si nga xam ne moom moo nekk fii di infirmière d'état bu tudd Maam Jaara boo xam ne ñun ñoo jokkaloo ci liggéey bi euh, li ñu leen di wax yenn gone yi ci yéen la ñuy njëkkee ba pare Eh, da ngay a jàng ba tollu ci yi vacances manam ngeen wara delu wat seeni kër li ngeen di dénkaat rek moy li ngeen fi waxon jamono yi ci walu set na ngeen ko japp bu baax te weyel ko set ci seen yaram set ci si li ngeen di lek, set ci fi ñu di nek jangalon nañ leen fi lepp lo xamne dafa jëm ci walu set bu ngeen delo ci kër ye ya, na ngeen ko gëna yokk tàmbal nañ leen fii tamit ci daara ji képp koo xam ne lu la dal rek ci saa si dangay dem ci fajkat bi mu daal ciy taxaw ñu bañ ko bàyyi muy yàgg loolu tamit bu ngeen delluwaatee ci kër yi na ngeen ci gën a farlu ak seen waajur yi képp koo xam ne gis nga loo xam ne jaaxal na la sa wér-gu-yaram na ko teel a wax sa waajur ñu teel ci taxaw comme niñ koy saytoo fii ci biir daara ji mbirum set mi nag

daaw nag ñi ko fi amoon ñett ñëpp Touba lañ donc ci liñ leen di dénk mooy dee leen tëdd ci biir ay sànke bu ñu naan dal ndax moytu sibbiru bi ndax gox bi sibbiru amatu fi su ngeen delloo seen waajur yi ngeen gën leen ko xamale noonu vacances nag dañ la da ngay dem dallu tuuti saafonteeg say waajur nga ñëwaat ngeen fexe tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàllu li ñuy wax dermatose mooy wàllu kuli gi dafa xaw a bëri ci xale yi su ngeen demee tamit seen waajur lu ngeen gis mu feeñ seen yaram na ngeen leen ci teel a wax ñu teel ci jóg bala ngeen di bala muy yàgg bala ngeen del si daara euh, daanaka loolu laa amoon lu ma leen di dénk ci jàngalekat yi ci ci élèves yi yéen ci jàngalekat yi tamit liñ leen waxoon ci jamono bële rek loolu la ñuy del si waat xale dafa nekk loo xam ne dafa oyof dafa fragile loolu la ko tubaab di tuddee ba lépp loo ci gis gaaw koo nemmiku gaaw koo yëgal kiy faj moom moo lay dimbali moom moo koy dimbali comme sëñ bi ni mu ko fa waxee sànq xale bu fekkee day day ta dañ koy tàggat ci dara bu amee lu ko gàllankoor rek mën na am lu ko rëcc loo xam ne da koy yéex a damuwaat donc li may def moom mooy sant maam jaara infirmière bi nekk ci biir daara ji bu baax ndaxte bu ngeen seetloo daanaka bëreetuma fi tànk te saa su nekk ñu ngi jokkoo ci téléphone lépp lu fi am ci mbiru wér-gu-yaram ñu ngi koy saytu dañuy ñaan rek gën ko dolli ba ëllëg ñu am suñu barabu bopp boo xam fii ci biir daara ji bépp jafe-jafe wér-gu-yaram bu ñu fi am dinañ ko mën a saytu ni ñu ko bëggee lool laa amoon lu ma doon wax di gërëm ñëpp di leen sant di ñaan vacances yu neex bu ngeen dellusee ci jàmm ñu continuer waat liggéey bi ci jàmm jërëjëf. ndeyu daara yi lañuy sant ak a gërëm ndeyu daara yëpp lañuy sant ak a gërëm ci seeni taxawaay waaye nag. ñu am ci koo xam ne ci seen biir ñoom dañ koo bëra bëgg a beral ak cant cant goo xam ne cantuk soññee la ndax loolu am na fépp ni mu amee fii ci jataay bi nga xam ne xale yi gën a mokkal dañ leen di beral ay cant ak i ngërëm ak i neexal donte xale yëpp lañuy ñuy gërëm ni mu amee ci fépp fu ñuy liggéeyee ña fa gën a jàmbaare gën faa góor góorlu dañ leen buñ santee ñëpp ba noppi dañuy génne kooka ber ko ñu sant ko cant goo xam ne ña ca des bu ëllëgee buñ ko royee ca loola mën nañoo am la mu am te muy cant goo xam ne mel na ne bañ ko dalee togg yàgg na ndax euh, man léegi ma yàgg fi waaye waaye li ma jiitu am na ca ñu ko santoon démb tey door a ñëw bi ma ko bi ma daataan génne cant gi itam dama leen a làmb ñoom ba gis ne loolu yilla la jaadu na war naa am ca Moussa ñaan la tàmbalee ndax mook daara jee ubbeendoo muy togg muy togg cant googu moom Moussa ci soxna soosi di ko seet di ko nattu di ko xool ci ay liggéey gis ne ba mu fi duggeek léegi ma seesu koo tere dara musta ñàkk liggéey liñ koy digal ca lay yem du ko weesu ca nañu ko soxlaa ci barab bi cant googu ñor xomm ci moom mu wax ma ko may itam bi ma dikkee may saytu soxna soosu di ko xool di ko xool diirub li ma fi nekk ma gis ne mësee su koo gis ci dara luñ koy teree mësuñu koo yedd ci dara waxtu ne mi ngi respecté liggéeyam loolu ma xamandoo ko ak ñi ma séqal liggéey bépp ban maase ko wax soxna soosu nag mooy soxna Jaañ Mbay soxna Jaañ Mbay wax dëgg yàlla jortu naa ne ndey daara yi ci seen bopp ñoom ñi mu di liggéey xam nañu loolu ci moom cant la goo xam ne gu matale la ci ñoom ñëpp ndax kenn ku ne góor góorlu nga kenn ku ne góor góorgóorlu nga ci lu baax waaye soxna soosu nag moom jéego yu gudd a gudd gudd lay dox ci liggéey bi boobaak léegi kon cantangoog goo xam ne yéen kilifa yi nga xam ne yéen nu dox liggéey bi ñu nekkal leen ci muy sëriñ Abo soxna maam Awa équipe bi ngeen nu booleel ngir nu liggéey soxna Jaañ Mbay moomu daal ñu ngi leen di seereel ne jàmbaare ngi noonu joo xam ne wax dëgg yàlla ku mérito la cant ak ki ngërëm ni ko ñëpp di mérito ni ko jëpp jàmbaar di mérito daal moom itam mérite la ci moom doonte cant la goo xam ne it moom ñëpp ko bokk waaye ginnaaw mu saabaxa la wax dëgg yàlla moom kenn jiitu ko ci mooy soxna jaañ Mbaye kon soxna jaañ Mbaye ñu ngi koy jox cantu kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey ginnaaw bi ñu ko ko boolee ak ñi mbokkal di liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum wa rahmatullahi ñoo ngi nuyu mbokk yi fi tew yëpp di sant ñu fi tew ñëpp di leen siyaar kàddu cant rek laa am bu may sànni sànq maa ngi wax soxna si ne ko su fekkee ne am na lu mu bëgg a jàllale ci mbooloo mi mu jàllale ko ndax man kàddu cant rek laa am waaye mu xamal ma ne moom it kàddu cant rek la am te kàddoom mën naa dugg ci sama kàddu. kon nag alhamdulilah. defee ñi mënta ñàkk tudd xëy na lu bari ñëpp mënee su leen a tudd waaye ñi mënta ñàkk a tudd maa ngi jàpp ne ñi nga xam ne dañoo ak noonu liggéey bi te newuñu ci ci sunu biir duñu leen limaale ci sunu bopp te ñuy def liggéey bu am solo ñooñu mën nañoo tudd ma di ca jiital docteur Dia mii toog ci sunu wet nga xam ne ci suba ba léegi dafa xëy si bokk ak ñun jataay bi mu yàgg lool waaye mu xam ne ci la bokk mu xam ne responsable la ci wàllu wér-gu-yaram bu fi nekkal public bi maanaam nekkal fi état loolu tax mu xam ne kon gox bi mu boor bépp nekk responsable ci ñoom yàlla def na ci biir gox bi ci la daara ji nekk mu xam loolu xam ne kon ci njaboot gi lañu bokk waaye yëmut itam ci loolu waaye xam na ne taalube la mu def ci wàllam itam ni ko talibé yépp di défé fu ñu fekk liggéeyu seen sëriñ loolu mënta ñàkk ñu seede ko daanañ fi faral gën a gis tam ab teewaayam ab demam ak dikkam daana fi gën a bari seetlu nañ ci jamono yu mujj yi liñ koy gis bareetul waaye loolu it li ko waral mooy eh, yéen ya, ñëpp xam ngeen ne am na fajkat bu yees bu fi ñëw di ko wax maam jaaram mbay la ko fi indi itam ah tànk yi doon dox ba mu fii yëpp loxoom génn ca mu ngi wéy itam dinu jàppale ci luy tax wàllu wér-gu-yaram fii ci daara ji gën a jëm kanam ah bi fi maam jaare ba léegi itam gisu ko waaye mi ngi jokkoo moom di liggéey ak moom di ko encadré di seq ak moom la lañ war a seq ci ñu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram kon loolu noo ngi koy sant ci turu sëñ bi di ko sant ci turu waa daara yi yëpp loolu jàllee ñu teg ci cellule de communication bi nga xam ne moom la isa ha mbake soson te denk nah, ko sëriñ Cheikh Mbàkke Fatma mom sëriñ Moustapha mom sëriñ Bassirou mom itam mu yebal fi ay bokki talibé ngir ci walu communication lepp lu ñuy yëngu fi ci daara ji ñoom it ñu di ko jël di ko sare, ndax ñu ko war xam di ko xam loola moom itam di sëriñ seex ku ci am taxawaay la taxawaay bu mat sëkk la ci am farlu bu mat sëkk la ci am ci bañ ko ko dénkee ba léegi jamono bu ne mi ngi jokkoog noonu di laaj lu xew ci daara ji lu mat tasaare ngir nit ñi xam ko loolu itam kon ñii mu fi yokkal te nekkuñu ci sunu biir waaye ñu ngi def liggéey bu mënta ñàkk moom it muy wàllu communication ah noo ngi leen di beral ñoom it bu baax a baax ci turu sëriñ bi communication moom dama leen a waxoon ne itam ñun li ëpp solo ci sunu communication fépp la baax waaye communication bi gën a efficace ci sunu barab bu demee ne bii mooy fexe bay liggéey liggéey bu wér bu lay may résultat soo ko amee nga wone ko su ko defee loolu lu muy jur mooy di jëf lu bari di wax tuuti ay communication li mu xewe léegi léeg-léeg dalay yóbbu ci ngay wax lu ëpp li ngay jëf di ko mottulee la nga waroon a def te defoo ko boobu nag amul solo waaye yàlla dimbali nañu ba liggey biñu waron def ci at mi ñu def ko ci anam gu rafet ba am lu mata woné wone ci liggey té lool nak kon day mata ko wini ñu tambalé ci sant kon ñi nga xamné ño yoré won organisation jotaay bi ci njiitul soxna Awa ak ko andal ah di sant itam ñi nga xam ne ñoo doon saytu wàllu concours gone yi di jongante ci wàllu alquran ci mokkal ak rafetu tari loolu itam am ñu ko fi baaxoo woon a féetewoo di ko taxaw waxtu wu ne ci njiitum sëriñ Afe ñooñu nit ñu ngi leen di beral cent ah li ci des nag mooy li nga xam ne moom la sëñ bi tegoon ci ay ahdaaf ci fii ci barab bi lañ ci liggéey ren ah yàlla defal nañu ci tawféex ndax ñetti tomb rekk la woon yoo xam ne moo doon ahdaaf yi tax ñu sos barab bi benn bi mooy ñu di fi wattu alquran ñaareel bi moy ñu di xam seeni farata ci diine waye ñettel bi moy ñu di jang jàng métier mu bax ci jigen mu leen mëna dimbali yalla def na ñetti xajjo yeb bu ci nek amna liggey bu mucc ayib bu ñu ci yàlla tawféexale ren ci walu mokal gi bu takku jàpp nañu ne daa ñu leen yabal am ci ñoom yaakaar ñu tari ji ñuy ñaan yàlla defal leen ndam ci tari ji ba ñuy tari ji ba li seen jàngalekat yi leen di yabal yaakaar jan yaakaaroon ci ñoom ba tax ñu leen di yabal yàlla dëggal ko ah loolu nag kon day daal war ñu sant bu baax a baax mbooleem koo xam ne kii jàngalekat nga ndax loolu moom bu mënee am ñoom jàngalekatu alxuraan yi ñoom ñoo ko def ñoom ñoo fexe ba lim bu xaw a takku boo xam ne bii jàpp nañ ne war nañoo mën alxuraan ñoo fexe ba mu am ci seen pasteef ak seen yitte. ko tax kan. na no ngi sant bolem ko xamne jangale kat pingin nga liggey bi ngeen liggey rek jii naka liggey yi ngeen dan liggey at ya weesu wax deug yalla rafet na noo ngi koy sédel sëriñ bi diko sédel ku walu bobu jalle itam walu jàngukaayu xam-xam bi ñu di fi fi ñuy xam loo seeni farata di fi xam lu di fi di leen feral iji ci français di leen feral iji ci arab di leen feral iji ci wolof foofu itam ñi ñu ko dénk liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib ba mën nañu ne daanaka ñoom ñëpp lu yàlla defal tawfeex ba ñu jàll bu amee lu jàll lu ëpp benn ñaar defe ñaar ci lay yam yo xam yi war nañu defaat ak mi ñu defoon waye ñi ci dess ñepp yalla defal na leen tawféex ba ñi leen doon jangal ba ñu leen natto gis nañ ni war nañu joge ci classe bi ñu nekkoon ren dem ci classe bi ci top déwén inshallah ak resultat yu mu ci ayib na wax deug yalla moom it foofu dinaa fi tuddu rek ko xamne ne dana mata tuddu ndax moom ni ma waxee docteur Dia noonu la xaw a demee day mel ne bokkul ci noonu te bokk ci liggéey bi ci liggéey liggéey bu mucc ayib muy Soxna Binta Guèye Soxna Binta Guèye moom ñetti ministère yi nga xam ne dañoo boole seen kattan ne dañ ñuy dimbali ci wàllu ay mbir yoo xam ne wàllu alphabétisation ci la bokk waaye wàllu dimbali ñu ci wàllu informatique ci la bokk ak yeneen ak yeneen muy. éducation nationale di formation professionnelle di alphabétisation en langue nationale ñetti ministère yooyu ah bu ñu boolee seeni kàttan projet bu ñu tegoon ci wàllu alphabétisation moom soxna Binta Gueye la ñu ko dénk mu di ko jàngale ah benn yoon rek lañ ko daan joxe waaye ñun yeesalal nañu ko ren daaw lañ ko joxe woon yeesalaat ko ren dig nañu ne it danañu ko yeesalaatal déwén moom soxna Binta nag liggéey na ci liggéey bu mucc ayib moom it ba ñi ko dénkoon ñëpp ngir mu xamal leen ko xam nañ ko xamin wu rafet am ci ñoo xam ne ràññeeku na muy ku sawar ci liggéey bi di ko ko man di ko am pédagogie ci wàll ni muy doxale ci wàllu jàngale loolu it ah mat naa wax ndax ñi fi nekk ay jàngalekat yëpp mën a xam ne man nañoo jariñu ci moom man na ko wax ah, am na fi beneen jumtukaay it xamle comme nañ ko daan xamle ci cosaan muy lu ñu tuddee majlis majlis bi itam di jataay boo xam ne dañu ko sos Dengko ko kenn ci jangale kat yi ngir man di top alluwa yi ci ñi bekk di man di top kamil yi ci ñi bind kamil waye di man di jangal mam jaare yi tam seeni farata ci diine di ko jaarale ci téré yi sëriñ bi talif loolu bëgg sëriñ bi la ngir di ko ci seenum jang ndax mu barkel mo am ci ay benn benn yi ñoo xamne beral na leen sax eh, ñu jox leen ay wolofal yo xamne da leen di xamal seen diini ñu jangal leen ko ci wolof nonu rek ñu raxul dara waye moom it ba amna na ci resultat bu rafet wax yalla euh ñepp ñoom ñepp xam ñu takku ci liñ leen doon xamal waaye rawatina ci ñu ko doon jaarale ci wolofal ba tax na bëgg nañu renforcer loolu mu gën a dëgër wàllu wolofal bi am na ñu ñu sant ngir ñu defal ñu ay gëstu ci googu wàll te wolofal ko su ko defee bu ñëwee ñu dolli ko ci lim ci daan yëngu ndax mu gën a rafet bu loolu jàllee xëy na ñi yëngutu ci métier bi moo ci des ci ñett yi ñu waxoon ñu yëngatu ci wàllu métier mi itam naka noona ñoom it seen résultat yaakaar naa bu amee kenn ku ma seetlu ne ci li ma ci jotagul koo xam ne jàllut kenn la waaw kenn ki nag moom lu doy waar la ndax ki jàllut li ko tee jàll du ñàkk a xam liñ ko doon xamal loolu moom lu mat a souligner la waaye yaradiku yaradiku loolu doy waar la ci barab bu demee nii koo xam ne ñi ko doon jàngal daal xam nañ ne sax liñ ko jàngal xam na ko waaye dañ ne kii moom bu mu jàll ndax ñu yare ko ko ndax daa yaradi ko loolu loolu loolu doy na waar moom loolu wax dëgg yàlla lu mat a lu mat lu mat a bàyyi xel la ah, foofu nag dañ ko tudd moom it ñaar ñoo xam ne dañoo nekk ci sunu biir te duñu leen limaale mooy soxna Anta Samb ak soxna Fatima Diaw ñoom ci centre de formation bi nekk Nioro fa lañ leen affecté ñu di fa liggéey waaye dañoo waxtaanoon ak seen kilifa ga fa nekk mi madame Diouf directrice ba ci mu jàpp leen teg mu waxtaan ak ñoom ñu rafetlu ko am ca cawarte wax na it sakkuñ ci dara laaj ñu ci dara lu dul ak ñaan ndax ay taalibe lañ ñoom itam dañoo war a barkeelu ci liggéey bi ñooñu mu ngi bëgg a dem ci defe naa ñetti at yoo xam ne ñu ngi dugal seen loxo ci liggéey bi di jàppale ñi ñu fi fekkoon dañ bokk ci noonu ñooñu itam kon yàlla defal na leen résultat yu baax kon boo ko boolee ñetti yooyu nga xam ne moom la sëñ bi tomboon ne moo tax mu sos daara ji bu ci ne yàlla defal na ci tawfeex ñu di ko sant yàlla bu baax a baax di ko sant itam ñi nga xam ne ñoo ko taxawee ba loolu mën a am ko taxawee ba loolu mën a am nag ah lu yaatoo yaatoo yaatu la dinaa ko di wax toujours liggéeyu mbooloo la boo xam ne bi kenn mënu ko kenn ku ci ne walla ga nga ca féete soo bankee sa loxo mu taxaw walla mu sooxe ba tax na mbooloo mu bokk takku kenn ku ne walla ga nga ca féete nga def ko ca rek moo ko mën a maye moo tax loolee ko mën a ñooñee nga xam ne ñooy booloo xanaa ñu tudd rek lenn ci tur yi luñ ci fàtte ñoo xam ne dañ koo fàtte mooy tàmbulee ko ci ñi saytu ak jàngalekat yi alquran yi jàngalekat yi jàngale xam-xam jàngalekat yi jàngale métier dem ci toggkat yi fóotkat yi toggule toggkat yi ak ci njiitum Sëriñ Moussa Niane ñu nga xam ne moo leen jiite fóotkat yi balekat yi ah ndey daara yi nga xam ne ñoo nekk ak maam jaare yi ci néeg yi di leen saytu ñoom it di def ci ñoom lañu mën wàllu làddanti ak gardien yi nga xam ne saytu buntu ba nit ñi mën a nekk ci sécurité lu fi war a dugg lu fi dugg ah foofu itam ma tudd fi kenn koo xam ne moom it dafa mel ne bokkut ci noonu te nekk ci liggéey bi muy sëriñ Ousmane Mbaye di mbokk taalibe boo xam ne man ba ma fi ñëwee ba léegi dama seede ne at mu jot bay na fi ab tool léeg mu bay mboq bay dugub bay areen ànd ko daay rëb maam jaara bu fi ne yaakaar naa ka gën a nekk ndoxal nday jooram ma di ko seen ci liggéey boobu ba léegi itam mooy sëñ Paate Siise mi tool at mu jot dañ fi bay tool ci yooyu ma tudd ak i gajaanga léeg-léeg te li ciy ñore fi ci daara ji lañ koy bayyi bu dee arène ñu yóbbu ko ca waañ wa boole ko ca la ñuy togg bu dee dugub ñu yóbbu ko ca magasin ba boole ko ci la ñuy jëfandikoo ah boole ko seen daayira bi itam alxemes ju jot ñu ñëw fii seetal daara ji léeg-léeg ñu buub tonn mbalit yóbbu léeg ñu boole lu fi nekk ci tax tax ñu def ci seen loxo lu ñu war a bay ñu bay ko lu ñu war a rab ñu rab ko lu ñu war a lakk ñu lakk ko loolu liggéey bu sell la boo xam ne ñu ngi koy def ci suuf te mboolewuñ ci wax kon nag ñun ñu koy war a ñun ñu koy defal itam ñoo ko war a seede sant leen ci turu sëriñ bi waaw waaye loolu daal xam naa <coughs> daanaka mooy li gën a li gën a far ci yi ñu waroon a tudd ndax Euh, bu dee ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom liggéey moom ñu di ko liggéey bëgguñu ci dugg ci ay tur bu ñu tuddee rek euh, lu ne ñu koy taxawee rek mu mu doy sëkk euh, xanaa lu ci des mooy jàkka ji jàkka ji itam di loo xam ne daa war di màndargaal meññeetum liggéey bi ñuy liggéey ndax barab bu mel ni itam ñu sas ko ngir lislaam di fi jàngale lislaam ñu fi wattu alxuraan di fi jàngale farata jàkk nekk fa ju toll nii dafay laaj lu ko dundal lu mënta ñàkk la sag la sutura la moo tax ñi nga ñi nga xam ne ñoo koy taxawee ba jàkk ji di dund la ko tàmbalee ci noddukat ak ci kat buy sétal ak iliman yi nga xamné ne ñoo fi jité ba tax yalla suturu sa sunu am ko noddukat yi ñoo ci rawati dama leen di wax né sax lég lég nga noddu ba noppi té do gis ko andal julli do gis iliman do gis keneen ay xat-xat lay doon ay ngant lay doon ñu wara nangul waye bu mu yow mi wara noddu ngay noddu ndax boo xasee noddu rek lu bon bon sutur la ci fu jàkk nekk ndax julli nañu wala julli wuñu mën naa am kumpa ña fa nekkut la waaye bu noddu jotee te noddu jibut nag ah ñu fa seen jàkk ñëpp dañ ne waaw ñii moom seen jàkk ji lu ñu koy doyee loolu itam wax dëgg yàlla noo ngi sant bu baax a baax kon ñi nga xam ne ginnaaw buñ defee seen liggéey ba noppi ñu ngi jàpp ci jàkk ji ci lu koy dundal euh, waaw loolu daal xam naa euh, doomu aadama moom xelam du mën a jàpp lépp waaye looloo ci jotoona euh, xanaa ku ma fàttaliku rek mooy sëriñ Ablaye Fall mi toogoon fii léegi dugg na ci biir rek ne xeeti liggéey yi fi nekk yëpp benn mënu cee ñàkk rek moom moo yore wàllu électricité bi ah eh, électricité ku ne xamna na muy jariñ mënu fay ñak té lu ci ban mo koy défar ba ba ko leer bi jeex di sant itam wa daara ji ci njiitul señ Modou Jaxate mi nga xam mo jité daara ji ak ñi ci agronome yépp nga xam ñoom itam lu fi am ci liggéey bo xam ay doomu aadama ñoo ko war a di ko liggéey mo liggéey magal gi bagage fi ñëw lu mëna doon ñoom lañuy wo ñu taxaw ko taxawé ko anam nga gëna rafet noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di ñaan yàlla nangul ñëpp seenub liggéey eh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu